que xamal ko ko ne ñun bakkanu Ousmane Sonko moo ñu gën a sax xalifa généraux yi fi ne te moo ko gën a cher bakkanu Ousmane Sonko moo gën a cher sax pour l'instant nii nii xalifa généraux yi fi nekk pour mu xam loolu fu ko yor na ko dagg envoyé ko ko mu xamala ñun Ousmane Sonko bakkanam su nii lañ ci teg yaa ngi dégg bu baax ñun usmaan Sonko moo ñu gën a tey lépp ko ka ñu xamal ko ko ne ñun bakkanu Ousmane Sonko moo ñu gën a sax xalifa généraux yi fi ne te moo ko gën a cher bakkanu Ousmane Sonko moo gën a cher sax pour l'instant nii nii ah xalifa généraux yi fi nekk pour mu xam loolu fu ko yor na ko dagg envoyé ko ko mu xamala ñun Ousmane Sonko bakkanam su nii lañ ci teg yaa ngi dégg bu baax ñun usmaan Sonko moo ñu gën a tey lépp